soxna si maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. tur bi naka la yaay booy. soxna may mun a jéey. soxna may mun a jéey ñu ngi la fekk fii ci Géejawaay ci anniversaire waa Pastef ma doon laajte sa teewaay fii du ma la laaj sax lu ko waral mais dama lay laaj lan moo tax ban ban ban kii nga am daal ban impression nga am le fait que nga ñëw fekk fii waa dirigeance. kontaan kontaan lool ci fekk si déjà coordination départementale. Pastef Guédiawaye waaye fekk si sunu sunu doom sunu rakk mi nga xam ni moom mooy la coordinatrice départementale de Pastef Guédiawaye Khadija Mayekor Diouf di xale boo xam ni moom dafa bokk ci jigéenu Pastef mi nga xam ne maa ko jiite mais bi mu fi ñëwee ba tey liggéey fi liggéey bu am solo ànd ceeg ay magam te ànd ceeg ay yaayam yi mu fi fekk di liggéey liggéey bu am solo ma kontaan ci lool nag ndax anniversaire bi dafay anniversaire bu spécial anniversaire de xamni c'est le cinquième de C'est ci chiffre 5. mais di anniversaire ba nga xamni dañ koy ci avec ses 5 communes muy ñaari chiffre 5. mais anniversaire ba nga xamantani aussi dafa nek euh, ci chiffre bo xamni dañ koy gis ñun ci Sonko muy le chiffre 5 fas ko def le cinquième président de la République du Sénégal le 24 février 2019 di contane nak ci taxaway bi di contane ci ni wa Guédiawaye génné mais di contane aussi ci lepp li nga xamantane euh Pastef en général Pastef dans sa globalité taxawé nañ ko parce que amul kenn ku dess même wa diaspora bi ñu ngi fi muy France muy Italie muy Canada muy Belgique ñepp ñu ngi fi ñu leen di talal loxo di leen ziar suñu mbokk yooyu nga xamante ne sonn ñu taayewuñu ci guerre bi waaye nag tey géejawaay spécialement pourquoi parce que géejawaay ñu bari dañu taxawone ne dafa am ñuko mom waye Pastef tay ñew woné bopam Pastef ñoo wane tey la vraie tendance la vraie donne mooy Sonko dans Guédiawaye Sonko le lion qui ne dort pas dans Guédiawaye di leen xamal rek ni kon tey anniversaire bu mat sëkk la. Eh boy lan la bés bi di représenté si yéen ñi nga xam ne yéen ay partisans wu Sonko nekk fii ci ci banlieue bi. Euh, mooy li ma wax rek dafa représenter lu rëy ndax tey le 5 janvier cinquième anniversaire le 5 janvier pour le cinquième président loolu ku mu doyul dara du la doy kon nag di wax rek ni. Je m'appelle Maïmouna En français. Je m'appelle Maïmouna coordonnatrice nationale Jigéenu Pastef. très heureuse ici de représenter le mouvement Jigéenu pasteur mais retrouver nos sœurs retrouver nos, nos, sœurs patriotes de Pastef Guédiouaï par la voix de leur euh, coordonnatrice départementale, Madame Khadija Mayekor Djouf, qui est une lionne, une panthère, qui se bat avec toute sa vigueur, qui se bat avec tout son engagement, qui apporte un nouveau sang, un sang neuf, je dirais plutôt, dans ce combat ici à Guédiouaï, avec son coordonnateur Alpha, Alpha Ba, qui lui aussi depuis quelque temps organise le travail ici de manière très très très euh, engagée, ne ménage aucun effort pour que Guédiouaï euh, euh, se soulève et montrer son engagement auprès du euh, président Ousmane Sonko. Mais ce qui me plaît aujourd'hui particulièrement, ce 5 janvier 2019, nous sommes là pour accompagner le cinquième président du Sénégal. Ce 24 février, nous le prouverons mais dire que Guédiouaï s'est uni aujourd'hui en une seule et même force pour recevoir le président, l'espoir, c'est-à-dire vraiment euh, celui que tout le monde attendait pour sortir le Sénégal de la pauvreté, celui que tout le monde attendait, pour changer la donne politique. Pour ceux qui pensaient que Guédiouaï appartenait à un groupe de personnes, Pastef a prouvé que Guédiouaï a enfin parlé et que l'homme choisi, l'espoir du Sénégal, c'est le président Ousmane Sonko. Qu'est-ce que cet anniversaire représente pour vous qui êtes des membres de Sonko ben, Ça représente ce que je viens de dire. Ça représente une, une fierté, une grande fierté en tant que présidente nationale, c'était toujours un plaisir pour nous de montrer à notre président que nous sommes fermement déterminés à l'accompagner à la magistrature suprême. On vous remercie.